تغفر السلام موجما بوي مقصفنا القبائل بايس الله Moustapha Gueye waxtaanu immigré altine bu jot ci waxtu wi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu moo leen di defal waxtaanu immigré saa su nekk mbokk yi ñoo leen di siyaare di leen sant di leen nuyu kenn ku nekk turam ak santam di nuyu auditeurs yi ak auditrices yi si nekk ci monde entier fu fi waay man di nekk rek noo ngi lay siyaare te di la ñaanal tey ñaan yàlla mu boole ñu jégal seen émission immigré numéro quatre-vingt-seizième partie ñu dikk ci tey ci ay poñ yu am solo waaye laata ñu ci ñëw rek nañu nuyu. ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal te ñu nekk ci diaspora bi ci fépp ci continent yi di ko tàmbalee rek ci Amérique di nuyu waa Washington DC ak waa Washington Speed ak waa New York waa Los Angeles ak waa Californie ak waa Atlanta ak waa Columbus ak waa Austin Texas ak waa Dallas Texas ak waa Arizona waa Florida waa Las Vegas. waa Colorado waa Cincinnati ak ñi nga xam ne mooy Philadelphie Alaska Hawaii ak Delaware ak Louisville ak Detroit ak Minneapolis ak Michigan ak it waa Missouri ak waa Montana ak waa ñi nga xamante ne si ñooy Nel Walda ak waa Nevis waa Mexico waa Chicago waa Harlem waa Caroline Nord ak waa Caroline Sud ak waa Dynasty ak waa Alabama ci nuyu tamit ñi nga xam ne ñooy waa Union soviétique waa Moscou ak ñu nekk ci Union bi ñëpp di nuyu tamit waa Amérique du Sud waa Venezuela ak waa Guyana ak waa Suriname ak waa Guyane française ak waa Colombie ak waa Équateur ak waa Pérou ak waa Brésil waa Chili ak ñi nga xam ne ñooy waa Paraguay ak waa Argentina ak waa Brésil walla waa Uruguay noonu it lañu ñu nuyu monde arabe nuyu waa Arabie Saoudite Soudan Syria Iran Irak Égypte Liban Libya Afghanistan Pakistan India yemen Algérie Maroc Tunis Mauritanie ak waa Israël waaye di nuyu tamit ñi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk ci Europe tàmbalee ko ci Angleterre ak waa Suisse ak waa Hollande waa Italie waa France waa Espagne waa Portugal waa Irlande waa Germany ak waa Danemark ak waa Norway ak waa Sweden ak waa Pologne ak waa Belarus ak waa Ukraine ak waa Finland ak waa Grèce Turquie ak Belgique ak euh, Autriche di nuyu aussi it waa Canada di nuyu ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekk ci. côté asiatique yi waa siin ak euh, waa sapon waa Corée du Nord waa Corée du Sud kon deuxième partie bi bu ñu ci dikkee rek ci nuyoo bi ñu jagleel ko waa Afrique kon xam naa ne dañuy daal di sóobu ci waxtaan wi su ko defee rek su suñu ci noppee rek tëje ko li nga xamante ne fii mooy comme loolu nga xam ne moom lañ leen wax léegi muy nuyu sunu bokki Afrique bokk yi seen émission immigré numéro quatre-vingt-seizième partie ñëw rek ci conclure li nga xam ne mooy émission bu la passé ci li nga xamante ne si mooy wàllu mariage yi nga xam ne léegi tëggatuñ ko ci euh, ni nga xam ne ni la war a demee xanaa teg ko rek ci bakkan Ah, te loolu gis nañ ne dugal nañu ci kamb koo xam ne danañ fa yàgg te dana metti te it ah, du jëme fenn waxoon nañ leen takkiin wi nga xam ne ñu ngi koy takk ci internet bi ci xeeti application yi lu mel ne WhatsApp group yi ñuy créer am na ci ñoo xam ne si buñ ci dajeek ay jigéen ci la ñuy jël seen numéro ci suuf di jokkoo ñoom loolu ba mënu ko weesu xam nga am na méthode bu xewoon bu yàgg boo xam ne ñiy dund Europe ci fépp ak ci monde bi fépp xam nañ li may wax jamono booba internet demewul woon comme nii da xam sax xëy na bu ameet communauté sénégalais yi jotuñu ci woon téléphone sax booba yombul booba li xewoon mooy woote ci li ñuy wax kurus gi nga xam ne ay appareil la ñuy la ñuy yor yoo xam ne dañ ciy def ay code gis ku ko jënd euh, durant une semaine di topp kër yi bu demee ñuy woote di fay ay escat moo xam Espagne la moo xam France moo xam Italie wala réew yi nga xam ne yëpp la même chose booba yooyu moo xewoon euh, mu dem ba mujj carte yi génn lu mel ne carte yi fii ci Italie Happiness ak Welcome ak yeneen carte yi nga xam ne noonu la demee woon nga xam ne dangay gis ko da ciy jënd lu bari teg ci kër képp ko soxla woo ko ne ko xoosal ma mu xoos jox la nga xam ne da gis kook lam ci woote par weer bu ko calculer ba di ko joxee da nga naan kii li muy wax fan la ko doon waxee booba it téléphone yi nga xam ne moo daan nekk ci kër yi nga xam ne moom la ñuy wax course gi da woote dégg escarte bi di wàcc da gis koo it da ci daan woote di woote di woote bu weer dee bu ñu élevé génnee facture bi calculal ko li nga xam ne wax na ko ci ay escate escate bu nañu ne nangam la ci xaalis ci jamonoy lira ba bu ñu paree golobal lépp jox ko mu fey ko loola it danga gis nga ne budget bu rëy la daan jur am na ci ñu liñ ci daan fay daana jege cinq cent mille lira am ci ñu daan fay trois cent mille am ñu la sax ñu daan fay lu ko ëpp dawunu wàcc téléphone bi jamono jooja télévision Euh, Sénégal yi amul woon booba internet bi comme ni ma leen ko waxee woon demul woon noonu vidéo moo amoon cassette vidéo yi njëkk yi ñu dem ba vidéo yi dem ba euh, lecteur CD yi muy DVD yi ñëw chan euh, changé ko nga xam ne léegi yooyu moo am yooyu nag bu njëkk Sénégal da gis ku mosaan takk jabar dañ koy filmer ca Sénégal def ko DVD def ko vidéo yónnee la ko nga fay ci lu cher a cher a cher léegi nag vidéo yooyu boo mosaat ñëw ba di ko seetaan ba annoncé gars yi yi nga xam ne ñoo nga bokkal dëkk te ngeen di am suuru samedi ak dimanche daan ko toog bu ngeen def dara ngeen toog di waxtaan rek comme d'habitude euh, dañ daan dajaloo ci kër googu annoncé na cassette ciitu sàngam ñëw na su ko defee kër gi day fees dell kaset boobu yi ku ko masaan seetaan daanaka jigéen ñu baree bari ci lañ leen takk dangay xool kenn rek ne kii fu dëkk ñu ne rakk diw la wala ki yor kaset bi ne la xam naa ko koñ sàngam la dëkk nga ne ko boole mag moom loolu lu ko gën a nekk erreur mosuma ko gis ci àddina nga xam ne yow wóor na la ne wër yàlla ne kii xamoo ko xamu la vidéo bi nga seetaan rek ak raar gi nga raar senegal gëj fa xëy na rek nga jàpp ne nag saa waay jamono jii ñu toll moom ba asamaan si doon wàcc mën nga ñu daal lay jox numéro bi ki la ko joxit mën na laa branché ak moom wool la ko xamal la ne la kii sama xarit la fii la dëkk yooyu yépp erreur la woon léegi nag loola gis nañ liñ ci yàq ci xaalis kenn xamul ni mu toll lañ ca takk ci sëy bu doon téeméer quatre vingt pour cent yi lépp ñëpp telluwaat dañ seeni këri ndey tas ndax foo mariage la xemmeem la loolu képp la woon cassette boobu da nga daan gis diggante dikk dëkk ak dëkk distance ay trois cent kilomètres quatre cent kilomètres même pas wala sax lu ko ëpp plus da nga daan gis ko kook samedi wala ajjuma ca ngoon bu dul xëy samedi day jël train bi dem ci dëkk yooyu dagg billet dem jëli ko ngir soxnaam sa ca génn wala mbokkam yi ci génn jaral na ko jël train wala mu jël oto def kilomètres yi toll noonu aller tur su dikkee indi ko seetaan bu paree keneen nekkaat ci beneen dëkk moom it boo xam si distance bi tol na noonu ci beneen région moom taal oto bi nga xam ne kaset bi daanaka dana wër réew mi lépp nga xam ne fu mu dem rek dana fa bàyyi effet fu mu dem rek ku seetaan ne ka may gis ki may dégg di ci takk tàmbali di yónnee ay photo tàmbali sëñ bi di di di di di woote nga xam ne maanaam ngoro yooyu mooy tax euh, téléphone yi ñuy woote di ci fay lu lu toll ne lii ma leen wax ngoro yooyu moom moo ko doon jur loolu ngeen defe ne nag. mën naa ànd ak nga ñëw ci réew moo xam si da nga fee tumuraanke li lay xaar bari xatal gi ñu lay xatal taxaw nga bëgg yow nekk ci erreur yu mel noonu nga xam ne temps lay jël bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg su ko defee nag léegi nag yow ban vision ngay amati pour mën a retourner sam réew duutu am duutu am ñi fi gaare ñëpp looloo leen looloo leen sonal te ñi ko fi doon def depuis année de pendant des années ba fi mu ñoo fi nekk. xam nga noonu ni ñu immigré ci boppam moo baaxul ñun ñëpp daan naa ne suñu vision benn vision la takk jabar ak genn kër goo xam ne si la fa nekk kenn xamul ni mu toll kenn nit nekk ci Italie gi wala Espagne yanu kër genn kër gi nga xam ne kenn ku nekk yow lay wékk soxlaam bu événement jotee yow yaa koy yaa koy occupé bu tabaski jotee yaa koy res bu kari jotee yaa koy res bu màggal jotee yaa koy res chaque événement rek yow yow yaa koy res yow boole seen soxlay bopp nekk fa boole kook duñ la may jàmm di taal sam euh, sa sa courant te duñu fay dara ay mbëndër yu fa nekk kenn joxewutub dépasse am ñu fa yori jabar joxewuñu dépasse lépp ñu wékkale ko piil sax bu lakkee ci kër gi piil wallahi lasim jar ci bitig ba mille francs barke sëñ Fallu duñ ko dem jënd dañ lay woo téléphone fii ne laa werandaay wi de lakk na wala sama néeg ba piil ba lakk na nangam ak nangam te waxtu jot ñu ngi lay kar karee téléphone yónnee ma yónnee ma te li nga leen di yónnee boo leen déggee téléphone rek dañ ko soxla waaye boo leen ko yónnee sax bañ dem ba retiré ko ba mu wóoree na pare nañ ci sax duñ la wane la jot naa ci xew yu baree bari sax duñ la ko yëgal ñu amul ci yow soxla duñu la yëgal dara lu bari day dafay xew nga di ngay laajte ñu ne la ah yow loolu ma defoon yëg nga ko ku la ko yëgal ay décès dafay am doo ko yëg ay ngénte dafay am doo ko yëg ñoom daal bu ñu la yëgalee dara rek dañoo dem ba mu wóor leen soxla nañ ci yow dara duñ xool heure booy tëdd heure booy yew ñu sa ci sa wér gi yaram dara duñ téléphoné sax ba laaj la sa wér gi yaram alu booba léegi tax buñ la woo dañ lay toppaas booba léegi maa ngi lay woo mënuma wuyu gis naa ne woon na am waaye naa la message tontu woo nangam ak nangam géttan la mel na yow moom maanaam yow li seen soxla si danga war a bàyyi sa lépp dem jublu ci loolu defe ngeen ne tey jii musiba bi mu jur tey ci réew mi kenn xam ni mu toll. pile bu lakkee sax yow la ñuy bunt bu dajji ko ñu xar la ñi fi nekk loo fa togg ñu lekk loo fa jënd ñu yàq kenn du la dimbali ci courant kenn du la dimbali ci ndox nga yenu charge yëpp weer wu dee loo liggéey gaspillé ko ci Western Union bi transféré ko mu dem ten li ma ci gën a naqari nag mooy dañ dul ma jàmm sa kër toujours ñu ngi ci ay ay ay xuloo waxtu jot da ngay jël téléphone. uniquement pour woote ngir àtte ab xuloo lu tax nga di ko wax lii lu tax nga di ko def te gis nga bala laa jooyee jàpp nga yónnee woon ci nit wala ngay defaralu foofa dara ba mu wóor na seen intérêt nekku ci yaa xam looy toppatoo dañ lay minimiser minimiser boo xam ne nekk ni sax da nga koy mujj bàyyi nga xam ne yow yaay nekk fii di téléphoné topp tool ma nangam ba pare di soññee kañ ngay dem buy dem yaay woote yaay woo fa mu jëm loolu ñooñu lan lay lan lañ lay jëriñ te gis nga boo demee bay waaj bay ñibbi Sénégal foofu la lay ree di jàppe ak i jooy mu wóor na noonu duñ ci génn xoolal liggéey bay ñibbi booleeg li nga transféré xaalis ci monnaie transfert yi par par weer dépasse kër ga courant ya ya cay faju ndox vida su duus dégg nga ravitaillement yi dem ci biir kër ga waaye tey booy ñibbi Sénégal kenn ku nekk envoyé la message jëndal ma téléphone buy jël WhatsApp jëndal ma téléphone buy def nangam sama téléphone ba dafa yàqu sama nangam ja kenn ko ne sarse la nga xam ne ñooñu liñ soxla lépp boo ko doon jënd tey jii danga nga génne tey prix de 2000 euros muy 1 million 300 mille CFA jëndal leen ko te doo matal te boo demee tey jii koo ko jox du ne la jërëjëf ma ngay xool leneen lu mu la tegat nga xam ne li fi yaa ngi man loolu moom doo am ak ñoom problème waaye booy dem fii nga xam ne loo gis jënd. lu luñ la may nga jël jënd sa walis ba mu fees dell boo demee di séddale di séddale ba mu jeex takk ñenn ña taxaw naan amaguma ak te bala ngaa daaneel balaa bis bee dese kenn ku nekk nan la boo delloo jëndal ma nangam boo fi defee weer ku la gis naa la kañ ngay delloo kañ ngay delloo koo waxal mu lay laaj problème yi jàmbur ana diw gëj naa ñëw lu ko tee ñëw bëgg nga def ci wax ci moom benn benn benn kàddu rek mu jël jóg tasaare ko ci àddina bi ne diw nee na ma nangam diw ndekete nangam ma ko téye nee na ma nangam. nga xam ne wóor na ne wër yàlla ne wóor na wër yàlla ne moodu yi li ñuy daj ci bitim réew la ñuy daj ca Sénégal la ko gën a raw vacance boo fa defee trois mois day mel ne ñeenti at nga def ci biir Sénégal moo tax ñu defoon départ wananteer yëpp dañoo daw génn yàlla bu yàlla nattu nag nga dem ba la nga mënoon mën toog dañ lay wooy sànni ca mbalit ma teg duñ ca yem de dañ ciy tiib maanaam di la sotti mbalit ak di la lu bon lu nekk ñu jël ko di la ko xëpp ku dox ñu ne la ana mbër dari mi moom da gëj naa ñëw këram gi de gis nga ko fi mu toll nii jabaram yi defalatu leen dara man da lam ma daan defal defalatuma ko nga di ko xas kooka jël xas ya dem di ko tasaare ñu wile pande la ci dëkk bi ba duutoo jar ñaar dërëm bis boo ne cëpp ci dëkk bi yàllantee kon lii xew léegi nga xam ne léeg-léeg nga gis ñoo xam ne si dañ fi toog ay at mënuñoo dax dañ leen di dajaleel paas ñu dem ñibbi ku ko jëkk a yëg ci Sénégal nga yàqu garam place bu mu toog tooge la am ci ñooñ bu ñu leen ko nettalee rek jaral na leen sol seenu dàll mel na koy dem cib dëj muuru seen ba jekk bu dikkee salaamaaleykum daal di nuyoo di mel na koy sedd sedd la ah man de masa waaye man de li may dégg moom ah réew ma de neexatul nangam nangam fekk da lay bëgg a jaale si dong la lay def si na jaale si bu fay jógee naa ah, la ngeen doon wax dëgg la dem naa fa de waaye diw mais de nangam ak nangam jabaram jee yàlla na fa toog sax laay wax moom de dara yoratu ko moom kay nangam ak nangam su ko defee nag say bokk ci boppam ñoo lay bittër ñi ci kaw mbedd mi ku romb am ci yow aspect te ñoom las leen bàyyi ci kër gi yaa yor nga leen pendant fanweeri at yoo xam ne si seen dara manqué tey nga dem ba mënatoo ñu def la carax yu dàll yu dagg jël sànni ca àll àll ba gone gu jóg loo ko wax mu delloo la ko gone goo wax dañ leen di jàngal gaaruwaale sax koo ci yónni woon dong tey mu làng nga nga nga forcé ko mu taxaw ne la da ngaa mënatu te dellu wax la wax ji da lay na lii du xalaatu gone mag ko ko jox boole ko comploté bu bon nag boo xam ne si bu la kenn xasee woon gannaaw ci moment boobu ñëpp lay woon gannaaw ñëpp lay woon gannaaw kenn dootu la faale koor na bu mu ne nëmu mel na golo goox lexe yi te defoo ko dara kompaloo ñoom ñëpp waa kër gi kenn kenn kenn bu fekkente ne da ngaa am ñoo frère yoo xam ne si yéen a bokk nekk ci réew mi nga nekk ci moment boobu ba yàlla dogal am ca ku jóge ca bitim réew ñëw vacances bu dikkee day mel na yónent bi ab yónent dafa wàcc dañ koy jël teg ca kaw dégg nga di sang ko ba mu set teg ca kaw di ko tagg boo ngeen àndoon tey nuyoo tey yow mi fi yàgg nga sant sekk ki fi door a ñëw sant Guèye boo ne asalaamaaleykum yéen ñaara waaw aleykum salaam géey na ngeen def nangam ak nangam ba jàmmante naa ne ah, waa sekk na nga def waaw ah, bu yow yaa ngi fi boobu ba léegi doon la jàmmal te dañ lay wan ne la dama dama lay ñàkkal fayda ba nga xam ne ñàkk ñàkk nga fayda senegal ñoo gore di bari na ñu fa dee wóor na yàlla laa la wax ni feebar rëyu bari nañu fa dee ñooñ seen heure dee jotu leen naqara leen yóbbu barsàq laa la wax naqara leen yóbbu barsàq ndax dañ lay bittar ñi wan lak mbañeel wan lak fongeel am na ci ñoo xam ne si bi ñu toll ña dem bàq yaa leen gën a gën a ndax ku xas moom pare nga ci donte doo mucc ci àddina ci aw lamin saret boo yéeg ñu jëw la garam place ba romb ñu jëw la mbedd mi mën a toofee génn wasin yëpp dañ leen a branché rek koo gis ñu xamal nañ ko ci yow loo xam ne boo génnee garab gi sax boo ko jubee da ngay gis ñëpp na teg xool naan xool ko yére yu furi yi rek xamoon nañ ne lii dana ko dal de ni daan def fii bu njëkk bu ma masaan ñëw dawunu faale dawunu def nangam waaye kayit yi day yàq xoolal fi ne nii imaginel boo demoon Sénégal tey yàgg fa dong def fa juróom benn weer xam nga lan lañ lañ jëkk xam nga booy door a dem dama leen waxoon ne la boo demoon tey na salaamaaleykum ku ne dana xëy si ñëw nuyu si la da nga gis sa moromam bàyyi mu ñëw bu ñëw dàll yi day summi ci bi te tam ñeenteel bi doomam sax moo la man waaye daf lay ormal toroxal boppam ngir bëgg lekk li nga yor nga xam ne li nga yor dong nga ko tax di di la war maal bu dikkee sax di jéem a toog ci suuf xanaa yaay jàpp ci mbagg gi naan ko bàyyi diw toogal ci naan bi te bala ngeen a wax ñaari minute mën a laa man kat boo gisee ma ñëw kër ga nangam bi tër ñi boppam te amaana la ma lay wax du dëgg nga yëkkati lu am solo jox ko mu génn xeeb ko gone yi ñëw mag ñi ñëw ku ñëw kenn du amul ci sa wér gi yaram dara wala mu lay laaj dara waaye yow mbaa indaaleel nga ma téléphone yow mbaa indaaleel nga ma sac yow mbaa indaaleel nga ma montre yow mbaa indaaleel nga may dàll yow mbaa indaaleel nga mbaa indaaleel nga am na ci ñooñ boo xasee toog sax da ngay gis ñuy yóotu sa loxo bi di xool montre bi nga takk naan la xanaa kii booy dem mën nga ko fay bàyyil gis ko yóotu sa téléphone ak téléphone ni mu dangereux nga ne ko cas kenn joxu la ci ndigal nga jël ko commencé di manipuler saa waay doo ma jox téléphone bi saa doo ma euh, euh, euh, doo ma jox sa jiin bi saa doo ma jox sa nga xam ne dañuy taxaw di la laaj mel na tan yu gis nga bu yàlla dogalee nga dem nag ba toog fa juróom-benn weer ba nga xam ne wóor na ne yoratul dara koo romb ñu ne ah kii de fóotlu na wala ma ngay ñëwati de xam nga wax ju neex ji gën a tane ci ñoom mooy lan ah yow xanaa da ngaa mënatut a xam nga lu bon nag la ñuy adressé yow xanaa dañoo nangu kayit yi xanaa ab liggéey te dana du ñam ca lool de da leen di jaral di woote ci réew mi waa diw moom lu mu fiy def ah diw de man damaa jaaxal dafay yàgg de man de fan yëpp maa ngi ko gis. mu jaral leen def ko événement ba keroog ngay delluwaat wala ngay dem bàq ya su ko defee nag léegi saret bu nu yéegit boo ci nekkee boo ci nekkul ku ànd ku dend ak yow kër dana dana dana dégg ñu naan ah moodu sàngam du sàngam ne mën a tëdd dellu te bu ñu la fa xasee exposé rek tegaat nañ fa ñeneen kenn ku ne ne man naka ma dendal kooku da jabar ja tas na daa mën a tëdd dellu kii di kayit yi dafa yàqu diw nee na ma nangam diw nee na ma nangam léegi nag yow moomu réew nga xam ne mën naa ne tey jii catastrophe yooyu mi ngi koy dund moomu réew tey ku bëgg a investir nooy def kon yéen bi ngeen dikkee mënu leen a dimbali seen bopp ngir yàlla xam li ngeen man ngeen teel koo def dem di jënd ab sëriñ di yóbbu moo dul yoon kuy demate Sénégal li ma leen di dénk yéen ñi may déglu yéen ñëpp laa leen di wax benn 1000 euro dong bu nekkee ci sa poche nga nar koo def ab saati poche seetal fii bagage yu yomb donte ñetti téléphone wala ñeenti téléphone smartphone yu baax wala ay iPhone yu baax te jar lu yomb ñu koy def promo au lieu que nga di ko jënd dem di ko maye nga jënd ko yu bees tàq def ci sa saag boo demee képp ku bëgg téléphone boo gisee ko ko soxla nga jaay ko ko boo jëndee cent euros boo jaayee cent san euh, cinquante euros wala nga jënde ko jaayee ko deux cent euros ci xaalisub CFA loolu bénéfice la waaye boo lang-langee sa sagaru mille euros wala sa deux mille euros wala sa cinq mille ba vingt mille def ko ci sa poche xaalis ci poche du xaalis. ndax loo romb bu jënd boo demee Sénégal dangay ngay defe na tëj bi buy asamaan si doon wàcc doo toog te fi ne laal 10 000 du dara ci yow laal 5 000 du ci yow te da nga moom moment boobu 1000 francs donc boo ko weccee day boo ko nee boo ko téyee day mel ne 10 000 nga téye léegi xaalis boobu mun leen koo jënd maanaam def ko ay ay bagage bu ngeen demee jéem koo jaayaat ndax ngeen a xaw a am idée ab idée yee tuuti waaye jënd ko ab sër ca 1000 euros nga di ko jënd ay téléphone dem di ko la ko ci mbalit ma booleeg di la te sa kër dara du la faxaar te tey bu boo demoon tey facture courant taxaw ñu ne suba lañ koy dagg koo ci ne woon lijjantil ma foofu 1000 francs yi ñu ci dolli mu lank ne la ëwma ko jaral na leen couper courant ba léegi nag li ci gën a tee yéeme maanaam minimiser bi mooy jabar ya nga yor ci kër gi sax ak ña ngay joxe dépense nga xam ne maanaam lu mel ne wàllu gaz yi ñu jënd kër yi ñu jënd nga xam ne loolu euh, ñaari semaine yu ne ñu nga jënd ko wala weer wu ne nga jënd ko àgg nañ ci ñàkkal la fayda ak toroxal la ak weer la ba àddina si ci xam ko même bu waree jeex ci ajjuma bii ñu jëm ñu war laa awarti sa tey dañuy bàyyi ba mu jeex ci ajjuma ja ba nga dem ci samedi ji ak dimanche ñu ne la sama gaas ba jeex na bu yàgg yàgg yàgg man sax maa ngi leb nga xam ne leb ga ñuy dañuy xam ne yow mii sa sa borom kër daf laa yónneewul su ko defee loolu na nga weer sa bopp weer sa borom kër teg ko ay stress yoo xam ne si kenn xamul fu fu mu jëm ci koo xam ne si jëlub téléphone ne ko nangam këriñ la jeex na wala gaas ba jeex na ni mu yombee nga taxaw lank ba mu jeex takk nga door na ko ah gaz ba kat jeex na këriñ la jeex na dépasse ba jeex na